Babacar bokk internet Actubuzz TV jërë ngeen jëf ñu amati mbégte contentement bu baax a baax ñu ngi amati mbégte bu baax toog assurance bu jàmbaar production mais toog ak assurance bi nga xamante ni tamit assurance euh, doomi parcelle ñuy ay nit ñu am solo lool ci làmb seen ñëw ci làmb réccu ko li may faral di wax chaque jour seen taxawaay ci làmb am na solo mënoon ngeen yem parcelle yi tëgg mbëri parcelle defuñu loolu dañoo jël as la ñu am mu néew ko mu bari ñu tasaar ko ci làmb di tëgg xale yi tëgg nañ lépp mais ñu tëgg ay journée yi am solo ci le 24 novembre xam nga diggante Marley Anaconda rek loolu léegi événement la am yeneen événement yi si toppaat yu si toppatal waxuma la si combat royal bi mais combat yi ndaw yi yéen tëgg ay combat neex la yal nañu yàlla suñu borom may àggali ak jàmm ak salaam di ñaanal Mansour Ba yàlla defal ko tawféex di ñaanal staffu jàmbaar bi yëpp yàlla suñu borom may leen jàmm ak salaam ngeen àggali journée bi mu neex si jàmm ak salaam nee nañ ko am or na k ko am jamaa takkal ñëw lépp day sécurité maa ngi lay nuyu baax a maa nekk internet yi du nuyu ak lu làmb du nuyu waa jàmbaar production di ko teg ci loxo Mansour Ba ak sunu grand papa Sow. Mm-hmm. làmb combat royal nee leen li wax gars yi du am am a koy tëgg wërsëg la ngeen taxaw ci def ci liggéey bu am solo euh, événement bi boobu noonu lañ koy waajee. waaw comme ni ñu doon waajee yeneen làmb yi rek ba pare yokku ci gars yi nee nañ ko yokku ci rek dolli ñeex mm-hmm. te ku ne xam na ni combat royal moom avènement Sénégal fii. ba tax na ñu ngi ci liggéey li ñu ci war a liggéey di ci xalaat xalaat yu baax di ci def li ci war a def ku ne gis na shooting yi bëri yeeg signature contrat yi génn ak yooyu noonu mm-hmm. ku xool rek xam ni jàmbaar ñu ngi ci liggéey bi quoi mm-hmm. des na yeneen ak yeneen avant ñoo jëm ci jour yi incha mm-hmm. allah taxawaay bi nga xamante ne tey am ngeen ko ak CNG euh, yéen kii ñëw ñu raconter wax kan nañ bàyyi Bira toog eggali un yi parce que làmb ji dafa am ay millions yam xam dañ ko see def ay journée yu war a ñëw ci làmb pour ñu gën a waxtaan gën a assainir làmb tamit tey wa noo gisee waxtaan bi. waaw waxtaan bi nag man fekkee naa ko mais assisté wu ma ko quoi. parce que dafa am leneen lu ma doon lijjanti si CNG bi ma ñëwee tombé ci réunion bi. Mm-hmm. après ma am appel ma génn. Mm-hmm. ñëw fekk mu jeex quoi xaw ma woon lan lañu doon waxtaan waxtaanee mais su ma juumal affaire CNG la ñuy wax. Mm-hmm. làmb la famille la. nañ xool nu mu rafetee ak nu mu aajooy ñu defee ko noonu ki nga xamante ni moo gën ci làmb dañ mm-hmm. ko jox affaire la ñu liggéey surtout waaw surtout loolu ki nga xam moo gën ci làmb dañ ko teg mm-hmm. ñu jiitool ko ñu déglu ñu liggéey mm-hmm. mais bu ñu jël topp affaire folklore affaire parparloo war a affaire àndandoo ba ku nekk di xool sa intérêt yow ñu xool intérêt làmb nañ xool intérêt làmb parce que làmb dafa am ñu ko compose ñoo xam mu ñu dem bàyyi seen morom promoteur mënul dem bàyyi mbër mbër mënul dem bàyyi promoteur mbër mënul dem sans manager promoteur mënul dem sans ay amateur làmb ñëpp ñu dem sans presse waaw promoteur amateur ménager mënuñu dem san presse. te ñun ñëpp ñoo far ñoo bokk ñooy daje fii. Mm-hmm. bu dara xewee ñuy suba ñooy dajawaat foofu. Mm-hmm. bu làmb amee ñun ñëpp ñi ngay gis chaque jour ngay gis. Mm-hmm. mais nan lañ ko rafetal ñu xool ki gën ci làmb. ñu teg ko fi ñu continuer liggéey bi. mais dafa am yoo xam jekkul ay promoteur dugal seen xaalis. daj seen journée yi lu ne ñu naan ay warul am ak day am ak du am stress yooyu ñuy teg doomu aadama yi loolu dafa xaw a metti xool nuñ ko rafetalee ki fi gën ñu teg ko même bu dee suba ñu teg ko suba après. kaay continuer état continuité la. ñu continuer ñu liggéey. Ah, loolu am na solo. Ah, loolu jarul jarul tool yi di bare ak yow. mais euh, euh, événement bu am solo seen combat Siteu ak ki nga xamante ne mooy Modou Lo bari woon na bari na coow de détail bi lamb ji bari na coow trop. waaw ah, mais combat royal la c'est normal ku ne xam ne Siteu moom. làmbam day bëri coow. dëgg la parce que moom ku ne xam ne. boo ne mbër yi gën a populaire Sénégal da ngay wax Siteu. Siteu da ciy bokk par force. aussi da ciy bokk. boo ne mbër yi gën a populaire ci Sénégal. Mm-hmm. dangay ngay wax Modou Lo. Mm-hmm. Siteu. Mm-hmm. ñeneen ñi. léegi ñaar ñooñu nag boo leen boolee ñu war a bëri combat royal. mu am enjeu bu si am. enjeu bu mooy Modou day jëlaat koronam teg ko. waaw Siteu ko jël yóbbu jaamu gan Modou bëgg jëlaat koronam yóbbu parcelle. enjeu boobu moo tax làmb ji demee ni mu demee am coow yi mu am lépp ko amee lépp dañ koy def ci stratégie ak fair play ñu xam ne sport la Modou bu gañee Siteu bu gañee Sénégal moo gañee ñu def ko ci fair play comme ni nga ko waxee ci début ku am war taxal ku am jamaa taxal dëgg la ku mu neex jëndal sa yére bu weex taal sol ko bu dara du ci tis li nga ñëw seetaan si jàmm ñibbiwaat si jàmm incha allah le 24 novembre te avant boobu ñu ngi ci waaj ay affaire yu yu am solo keroog shooting yi ba ñu génnee ñu gis dayoo ñaari mbër yi. gis nañ Modou loo gis Siteu mais Siteu bëgg na combat bi de. ah waaw c'est normal combat royal combat bi li ci gën a yéeme gars xamuñu mooy ñaari mbër yi seen début carrière ñoom ñëpp kenn kenn kenn tegu leen woon sax ay. ay mbër champion waaw dëgg la. wallaahi la si Modou bi muy départ dañ naan kii dafa tuuti dafa lii. Mhm. muy dugg si garant yi di verser di ci xam. dem ba téye làmb ci loxo. loo ci mun a dégg mooy numéro un wu làmb. waaw si te dugg ñu naan war warul nekk mbër kii dafa yabaate kii. Hmm. phénomène la comédien la. mu dem ba war a bëri combat royal. mais day fonk combat bi. combat royal mooy maam saa mooy plafond mooy fi foofu la làmb yam. fa la làmb yam de boo demee bay bëre foofu rek am nga mérite. comprendre nga mu nekk ñaari athlètes yoo xam ku leen gis xam ni ñoom ñaar ñëpp bëgg nañu bés bi. Hmm. pare nañu. peut-être boo laajoon coach si ñoo ñoo ñooñu ci ëpp expérience mais yow ak li nga yàgg assister làmb yooyu da ngay xam ne ñaari mbër yi état de forme bi ñu yor peut-être da ngay wax gëj na gëj nañ gis état bu mel nii si ñoom wala mosuñu gis état yu mel nii si ñoom kon moo lay wax ni ñoom fonk nañ bis bi dama naan bu fekkoon làmb ji ci biirum agent euh, Siteu mooy agent wu jàmbaar Siteu mooy parce que jàmbaar combat Siteu yi mujj bëri yéen a ko tëgg voilà yéen a ngi ko tëgg ki mooy Modou Lo ci li nga xamante mooy ci ci kon tey ngeen indiwaat bis bu doy waar muy làmb joo xamante ni tey bari na polémique nag polémique bi ci am que dañ na ñu naan ay waxkat ñu naan 35 combat boo xam Modou mun Siteu est que loolu gëm ngeen loolu yéen. non ñun nag xam nga munoo nekk juge ba pare nekk parti. waaw munoo organiser ba pare di analyser. day xaw a gauche loolu dañ koy bàyyi <laughs> ak amateurs yi ak chroniqueurs yi ah loolu lañ koy waxee dañ leen di bàyyi ak loolu ay kii am na doole ki amul doole kii bëgg na làmb je kii bëggul kii mën na daan ak kii mënul daan mm-hmm. wax dëgg yàlla ñu dañuy mal placé pour wax ci loolu ñun li ñu gën a mën a wax mooy nu ñu sensibiliser supporters yi woo amateurs yi stade bi incha allah ci kàttanu yàlla comme ni ko ñëpp di xalaatee mu mm-hmm. demee noonu 15 heures mu tëju. waaw loolu loolu Mansour da ciy wax Papa Sow da ciy wax loolu sant yàlla la ak ndimbalu suñu borom première journée nga ñëw tëgg tëgg arène nationale def deux ans ci làmb tëgg combat royal cest loolu loolu sant yàlla la dëgg la te xam nga loolu lu koy waral gars yi dafa am yu nuy jaawale hmm. da ngay dégg jàmbaar production jàmbaar production parce que des fois nga dégg ay nit génn wax nga dégg duñ tontu duñu wax. Ah, non non c'est-à-dire jarul loolu. et dama gis ne structure jàmbaar ñëpp da ngeen a yaru. ñun làmb boolewuñu ñun ñii di ànd nii si jàmbaar ñi ngay gis chaque jour. Mhm. ñun ñëpp ñii seen ànd yi def na di vingt ans. Mhm. ñii def na quinze ans. ñii def na dix ans. Mhm. maam jàmbaar ñun bi ñuy ànd. boobu ay Ibomar Assane Diouf moo am. dëgg la cest à xalaataguñ sax tabax ko. tabax ci àdduna voilà léegi. bu ñu demee ba arène national am ñu am Mansour am initiative. tëgg mhm. làmb pour jàppale ndaw parcelle ak ndawu làmb. ñun ñëpp ñu boolu chaque jour ñooy nekk. ñooy ànd xew yi ñooy ànd mariage ñooy ànd ngénte yi ñooy ànd fépp ñooy ànd làmb match bu amee sax ñun ñooy ànd. dara amul ñun ñooy toog chaque jours di waxtaan ñooy entraîner ñooñu dafa nekk ñun c'est-à-dire ñun famille lañu quoi. Mhm. moo tax tey jii lu kiy wax kii moo ko wax lu kiy xalaat kee moo ko xalaat noonu la demee quoi moo tax. amul jarul détail est-ce que da nga naan tëj làmmiñ ñu bari ci seen combat yi da nga ñëw def ay journée gars ñi naan ah jàmbaar daanu dootu ñëwati ngay ñëw teg combat royal. waaw mais xam nga nit moom nit ki du mu toll. ak fi mu fi fi niveau mu yem. Mm-hmm. chaque jour foofu lay waxee. dëgg la fi mu toll ak niveau fi mu yem mm-hmm. chaque jour chaque jour. Mm-hmm. foofu lay am na ñoo xamante ni saa yoo leen dékkee micro ñuy wax lu ñu wax lu baax. dëgg am na ñoo xamante ni saa yoo leen déggee micro ñuy wax xam-xam la ñuy wax. ku si mel ni par exemple Mansour. saa yu defee interview boo dégloo interview da ngay gis xam-xam gis yar ak teggin maanaam dafa am culture générale. man de yaram mu ngi noonu am na ñoo xamante ni nag saa yoo doon rombee si YouTube bi doo am envie seetaan leen parce que daf lay leer ni ñi du ñu wax wax ju baax. wala du ñu wax wax bu am teggin. te loolu dafa am importance si mm-hmm. doomu aadama. nit ñi dañuy sàmm maanaam seen diggante ak doomu aadama yi. da ngay waxal nit lu ñaaw ngeen xëy daje CNG. wala nga waxal nit lu ñaaw ngeen xëy daje si ngénte mu ñëw fekk la nga toog mu yëkkati loxoom jox la mm-hmm. nuyu la. la sa wàccuwaay. léegi yow léegi lan la léegi loolu da ngay waxal nit lu bon après mm-hmm. mooy loolu moo rafetal adduna amul solo. mais mais dama dégg dafa am communicateur làmb yoo xamante dañ ñaan bu ñu leen fay duñ communiquer ci làmb ji man de man de maa ngi ci communiquer bu leen ma fay dara làmb sama yëf la ci lay liggéey bëgg avancement làmb te kenn du tëgg combat bu toll nii may toog di noppi. waaw côté boobu yow yow yow yaa ngi ciy liggéey. Mm-hmm. yow sa caméra bii nii ak sa micro bi mm-hmm. yow moo lay fay. kese. <laughs> tey jii bu làmb amul woon. di ma fay. da dem da ngay dem di reporter nawetaan. wala ngay dem di reporter championnat. wala nga dem ambulance ji. kon bu làmb taxawee. Mhm. yow làmb moo tax ñu xam la. tey jii foo tourné dégg Abou Sefa Abou Sefa làmb moo tax ab ñu xam Abou mhm. Sefa bu dul woon làmb kenn du la xam. Mhm. kon tey jii boo toogee assurance tëgg wala Ibrahima tëgg wala Jamaïcain tëgg nga toog nga ne da ngay xaar pour ñu woo la pour nga def si promotion. yàq nga ko. làmb ñor yàq nga ko te yow chaque jour yaa ngi toog di wax ci làmb yi. <laughs> sa YouTube di di di di di jug. Ah. ngay def ay live. te kenn woowu la te pour waa yow gars dañuy gars yi dañuy tegu ne quoi. dëgg dëgg <laughs> rafetul. dañ ko rafetal ñun ñëpp ñëw bokk liggéey bi ñun terewuñu kenn dàquñu kenn won wanuñu kenn ginnaaw. soxorewuñ kenn. ñun jàmbaar c'est-à-dire ñun suñu làmb chaque jour bu ñu defee li ñuy gën a critiquer journaliste yi. xam la ngir ñun. chaque jour loolu la ñuy critiquer journalistes yi journalistes yi journalistes yi kon ñun suñu làmb amul kenn koo xamante ni ñu ngi la si wan ginnaaw wala ñu ngi la si bedd wala ñu ngi la si mm. lépp lu am ci jàmbaar lu ñu war a def man maay jël sama téléphone woo ñi ma war a woo ñëpp dina am ñoo xamante ni sax doo leen woo mais dañuy ñëwul seen bopp loolu mooy ñoom dañoo fonk seen liggéey dañuy liggéey comprendre nga mm-hmm. noonu la demee nag keneen kuy xaar ñu woo la toogal incha allah dinañ la woo <laughs> waa <laughs> assurance naa ab kontaan naa di woo ñëpp incha allah. ci le 24 novembre incha allah di ci woo amateur yëpp. di ci wax Anaconda ci lay bëre ak Marley. Mamadi Mamadi Ndiaye ci lay bëre ak euh, Santa Gningue. Alliance Balde ci lay bëre ak Dun bu Faas. waaw Bébé Elton. ci lay bëre ak ci lay bëre ak <laughs> Cheikh Niang. Cheikh kii nu mu tudd Vieux ci lay bëre ak Sa Jaxaay. Ama Dia si lay bëre ak nëpp waaw Papa Ndiago si lay bëre ak euh, Sidi Jàmbaar Papa Sow bu si lay bëre ak si si lay bëre ak top ak top 5 Petit Zene si lay bëre ak euh, Modou Sabala bu waaw di ci woo amateur yëpp di ci wax avant combat bi am na ay yeneen face à face ak yeneen ay affaires yoo xamante ni ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax d'ici d'ici quelques jours rek incha allah yëpp dinañ wàcc bu ñu si jógee ñu préparé open press ñaari mbër yi jëm ci le 24 novembre incha allah jërëjëf allah